salaam gars yi na si yéen ñoo xam ne problème bi lañu am exemple tey ñu yor compte XBET si seen téléphone ñu am fa xaalis bu bari téléphone bi ñu sàcc ko wala ñu changé téléphone fàtte jël li nga xamante ne mooy mot de bi mot de passe compte 1 bi léegi ñu fàtte ko exemple tey euh, boo leen pertoon seen ID XBET wala seen mot de passe di def ba récupérer ko question bii nii bari nañ lu ñu ma koy laaj trop moo tax ma décidé def si benn vidéo bu Eh, exemple tey nga yor nga yor compte bet nga perte li nga xamante ne mot de passe bi léegi boo ko perte da ngay ñëw Google Chrome de defoon naa si vidéo sax dama si dama si defaat vidéo parce que am na ñoo xam ne ko Google Chrome eh, du XBet kese parce que parfois nga am mot de passe boo xam ne soxla trop nga perte ko hmm? exemple boo ko pertee tey da ngay Google Chrome gis nga trois traits yi nii trois traits yi gis ngeen trois traits yi bu da di ñëw fi ngeen di ñëw paramètre paramètre ngeen di ñëw boo leen ñëwee paramètre après da ngeen ñëw fii nii gestionnaire de mot de passe donc boo leen ñëwee gestionnaire de mot de passe lii lépp gis ngeen lii ñaari compte la donc sa code téléphone gis nga mu ngi man euh, gis nga lii nii exemple tey lii sama compte la sama compte one xbet la léegi xama démasqué ko xama démasqué ko gis nga mu ngi nii ñaar yi nii compte OneXBet bépp mot de passe fii am na ay compte BetClic tout c'est ça du compte XBet kese moo fi nekk parce que bépp mot de boo xam ne mos nga ko enregistré sa compte Google si sa téléphone mu ngi fii nii donc gis nga 27 compte ça set compte mu ngi nii bépp mot de passe daal ba laa di wax bépp mot de passe gis nga ay expat Dakar Facebook lépp ngi fii on est gain easy change même seen compte Facebook seen mot de passe Facebook. PayPal lépp a ngi fi lépp fii lay nekk te dama leen di wax benn affaire tamit parce que parfois nit dem euh, jaay téléphone am wala mu jox ko mu fàtte dindi li nga xamante ne compte Google bi dee leen dindi seen compte Google yi parce que boo leen ko dindiwul gars yi bu ñëwee eh, une fois que nit ñëw nit ñëw rek cliquer ci trois trois points yi nii ñëw paramètre gis nga ñëw gestionnaire de mot de passe lépp loo xam ne information boo xam bu privé la. Euh, même bépp compte yi nga doon am euh, mën na kaa jël te bu ko jëlee tamit mën na kaa utiliser gaa yi di baa xel moom moo ne wax yéen ñi nga xam ne da ngeen di jël ay téléphone di ko jaay te leen supprimer seen compte Google yi yaa ngi jëf